asalaamaaleykum mbokk yi tey la gaaw ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tabaski ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo juróom-ñaari fan ci weeru ut ci atum ñaari junni ak nit ak benn ñaar fukki fan ak juróom-ñaar bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci gaawu bi rafet na ci lépp ba mu des ku ca sangu wala ku ca fóot li ñu ci gën a taamu nag moom gaawu mooy ku ca watu ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma ajjana maa ngi lay ñaan nga musal ma ci sawara allahumma inni asalukal janna wa astajiiru bika minan naar xadiisu bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallama nee na ida anfaqa arrajulu ala ahlihi nafaqatan wa huwa yaxtasibuha kaanat lahu sadaqa ku joxe dépasse te yéene ca sàkku tuyaaba dana ca am yoolu ku saraxe xaddis bi buxaari yi moo ko nettali ak muslim waxtu julli suba waxtu dana tàbbi juróomi waxtu wu tegal fanweeri simili ak juróom-ñett tisbaa benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili tàkkusaan ñeenti waxtu wu tegal ñeent fukki simili timis juróom-ñaari waxtu wu tegal fanweeri simili ak juróom gee juróom-ñetti waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak juróom benn loolu mooy waxtu julli ci Tuubaa ak li ko wër bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penk ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres yu ne wàññil benn simili soo ko féetee soowu wala gànnaar wala saalum téeméeri kilomètres yu ne yokkal benn simili jant bi dana fenk juróom benni waxtu wu tegal juróom fukk simili ak ñaar di so juróom-ñaari waxtu wu tegal fanweeri simili ak ñaar yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin